sinon am nañ ay avocat ay avocat moom am nañ ko problème et puis di remercier peuple bi au nom de la famille au nom de la famille kontaan nañ ci yéen loolu euh, encore une fois beneen ndam lu rëy boo xam ni am naa ko neex na neexul parce que dañ famille ubbi nañ cagnotte mais comme yaa mon nom pour une première fois dans l'histoire ñu ubbi cagnotte xoolal gars yi dem ci page yu Hannibal Jim di ko signaler en tant que arnaqueur ba Facebook bloqué page am <laughs> ndaanaan ngi nii de lu muy def du am Sénégal chaque jour lu muy def moom moo koy réussir moo tax man dama am dama am mbégte sama bopp nag dama fan sama bopp parce que j'arrive à faire des choses yu musul am dans l'histoire du Sénégal moo laa bu ñu gis ñu ubbi page Hannibal Jim ubbi cagnotte pour la famille booy gars yi dem ay répondeur automatique yi ak faux compte yi dem ba signaler Hannibal ba ñu bloqué compte am ba ba compte bi sax même bu pour dugal cagnotte bi dañ ko bloqué boo leen seetloo premier jour premier jour cagnotte bi def na deux millions et quelques premier moins de vingt quatre heures taf sénégalais di envoyé bu ñu defoon deux jours affaire bi mat six millions booy gars yi mat angaar parce que moo Mollah Morgun ñuy signaler boum boum boum des centaines de milliers de signalisations de faux comptes xoolal ba ñu bloqué affaire bi ba ñu bloqué c'est la première fois dans l'histoire ñëpp lañ defal kañot kañot ba yegg moo laa rek mooy te moom defaluñ ko kañot de famiyam lañ defal kañot ak turam rek turam turam ci kañot bi rek xoolal gars yi dem kooku ça montre que encore je fais partie de des opposants les plus farouches du pouvoir l'histoire retiendra que y avait un Mollah Morgun kañu bi dafa bloqué wu dafa bloqué wu parce que ñu bëri jëm nañ dugal demut man mii bu ñu ma ko waxee dugal naa sama carte ça passe pas donc ñu bëri bloqué cagnotte bi dañ ko bloqué parce que dañoo dañoo dañoo déjà dañoo tëj page yu Hannibal Djim Facebook da ko tëj parce que dañ ko wax comme en tant que arnaqueur en tant que tekkatu deal nangam ak nangam ba cagnotte bi nii nii nii nii nii dañ ko tam bloqué cagnotte bi mënoo cee dugalati dara depuis depuis pas mal de temps bougé wul c'est trois millions cinq cent mais du problème mu xaalis wax naa leen du problème mu xaalis vous l'avez fait pour le peuple sénégalais vous l'avez vous le peuple sénégalais vous l'avez fait pour la famille donc alhamdulilah wala moins de vingt quatre heures ça fait deux millions cinq cent kon heure bi waxatuñ ko mais mais wax naa len ça c'est pas un problème xam nga lan la ñuy wax un geste symbolique un geste symbolique bi ngeen def loolu mooy lii ngeen def man le truc je l'ai réglé depuis ku dem Kaolack ca bustaan da ngay fekk gars yi jal nañ suuf yi ña ngi koy commencé dóor je l'ai réglé mais geste symbolique bu ngeen def moo am solo la fait ngeen dajale seen alal dajale seen pouvoir dajale seen lépp gouvernement bi tam yónnee ay nitam ay chien errant gars yi di xeex ba bloqué loolu ndam la di xeex di xeex ba bloqué page Hannibal Djim neexul nag ci Hannibal Djim ils ont bloqué la page Hannibal Djim mais mbégte la ci man ba nga xam ni nga wane Sénégalais yenn ñenn ñi nu ñuy soxoree parce que nu ma leen di xeexee ça montre que encore une fois may li may def dafa am solo. def naa lu musul am dans l'histoire si sama combat bi di xeex ba ñu ñuy taal kër mu ngi doog am Sénégal ñu ubbi kañot ñi xeex di xeex ba tëj kañot ba di xeex di xeex ba tëj page Hannibal Djim et cetera et cetera mais. waxoon naa leen c'est pas un problème d'argent parce que Dieu daf ma bëggoon soulever ci parce que loo gis yàlla bu la buggee defal ndam day mel ni ku lay wàcc fekk da defal ndam yàlla buy defar day mel ni kuy yàq yàlla dafa bëggoon wane au farce du monde que kii di xeex ak yéen soxlawul dara te man Allah may naa ko lépp man je vous l'ai dit man ñàkkuma dara ñàkkuma tus soxlawuma dërëmu kenn parce que dama suur dama regg yàlla tam dafa ma siggil nammuma dërëmu fukk kenn et je l'ai dit depuis le début de l'histoire je du ma arrêté gars yi seen gest symbolique bu ñuy def le sénégalais ñoom dañoo boole le sénégalais ne dañuy def geste symbolique delloo ko à ma famille ñi nga xam ne dañoo subir injustice mais man je vous avais dit que tout est réglé quand ils m'ont fait le débit c'était neuf millions et quelques je les ai envoyé dix millions de francs dix millions de francs CFA laa leen yónnee ne leen defar leen gaale bi parce que sama tur moo tax ñu taal seen gaale man dëkkuma fa sama tur moo tax ñu taal seen gaale dama leen di jox dix millions de francs fa je les ai donné dix millions de francs CFA gaale bi ñu ngi koy defar te cagnotte ba dafa bloqué wu génn gu fa mais ku dem dem leen kaw la xool manœuvre yëpp nga fa. bu ñu ma defalee ko c'est neuf millions je sais affaire baa ngi fii sax début bi c'est neuf million a quelque ma jox leen dix millions rond ana journaliste yi dam leen bind <laughs> dam leen bind ñu dul dimbale papaam ku dul dimbale papaam ba xam yéen seen baay seen baay bu taalee seen kër yéen kenn dina ci génn yéen journaliste yi kenn dina ci génn dix millions jox seen kër <laughs> man dix millions laa génne xaaruma sax kañot j'ai participé dama dimbale sama famille jox leen dix million ron dem leen defar kër gi commencé nañ ko commencé nañ ko donc ñun yàlla bàddil nañu xéewal ñun yàlla yëkkati nañu ñun yàlla siggil nañu gars yi bloqué leen cagnotte bi nag cagnotte bi jeex na ma wax naa ko Hannibal Jim nañ ko bloqué Euh, fa mu yem noonu mat na gars yi mat na sonnalatuñu leen quoi famille bi ñu ngi leen di gërëm di leen remercier gis nañ seen taxawaay gis nañ seen support gis nañ seen apport gis nañ ni ngeen leen taxawoo ci saayir ak ci baatin vraiment mat na quoi mat na nag mat na mat na mat na baax na 3 millions 500 bëri na lool ndax li ngeen ci def xajoon na ci seen gafaka xajoon na ci seen i famille ñi ngi leen di remercier di leen gërëm boucler wax naa Hannibal na ko boucler na ko boucler na ko fatt léegi kañet bi heure bu génnee baax na de toute façon gàlle ñu ngi koy defar suuf si ñëw na karo yi ñëw nañ euh, peinture ba ñëw na gàlle bi yëpp laay defar gàlle bi yëpp gàlle bi yëpp gàlle bi yëpp laay defar de fond en comble lépp laay defar voilà loolu laa leen wax daf leen début bi ils ont fait le début tout tout tout tout ci biir salon yeeg tout verre yeeg li lépp lépp lépp lépp ça fait neuf millions sept cent nangam je les ai donné dix millions donc cagnotte bi bu ñëwee ñoom dinañ ci soos dinañ ci jënd ay soos jënd ci cere parce que ay saalum saalum lañ cere baase xam nga wax naa ko sama frère bi yu bu ñëwee ngeen dëndi sénégalais ñoo leen ko jox dund leen ci jënd leen ci cere bu bëri ak baase baase wala cere siim keccax gi na gën a bëri ak lu euh, mu tudd di ngeen def ci aussi euh, Euh, ñebbe gi ñebbe gi dina ci baax sëb ña sëb ña daf leen ci sëb ña waaw nee naa leen bu ñëwee ngeen wut ci nag rey ko saraxe ko xam nga wàcc kaamil yi foofu voilà bàyyi faal itam jëriñoo xam nga guddi gi gars yi dóor fa ab cant gu takku wax naa leen ko nee naa leen bu 3 millions 500 yi ñëwee ngeen génnil ci sénégalais yi sarax parce que def nañ ci lu rafet. Euh, rey leen ci nag def leen ci cereg baase euh, wala cereg mbuum. wala wala cere sëb ña euh, ngeen jox ko Baay Faal yi guddi gi ñu def kafe Touba gi cant ko cant gu neex sante ko Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba wax naa leen ko suba si incha allah donc kaño bi bu ñëwee buñ ko indee dinañ ci rey nag dinañ ko saraxe dinañ def cant yu doy waar euh, journée bi cere baase gu saf-sap guddi gi incha allah café Touba gi beñe bi Baay Faal yi sikkar kon nag si suba si incha allah nañ fa wàcce kaamil alxuraan gi dina jëpp ah guddi gi nag ay fal laa ilaha illallah jërëjëf sëriñ tubaa gi dina fa jib loolu incha allah kon nag ñi ngi convier tous les sénégalais yu nekk Kaolack ñu préparé wu ne incha allah ñi ngi sant yàlla di gërëm suñu borom subhaanahu wa taala moom ajawajal di sant muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm tous les sénégalais di leen wax ni bu kañot bi ñëwee ba ñoom Hannibal yóbbu ko fa incha allah maa ngi invité ñoom Hannibal ñu bañ a jógee foofu jour boobu ñu toog xaar ñu jëndal leen nag euh, ray ko togg ko ba mu neex wàcce fa alxuraan kaamil guddi gi cant baay faal dina ñëw samp ko buntu kër ga waaw café Touba bi di dàqe bañee di dàqe jërëjëf Serigne Touba yi di dàqe ak laa ilaha illallah gi sikar waaw donc loolu lañ fas yéene Eh, ñu ñaanal leen yéen ñi nga xam ni seen doole gi ngeen jël def ko ci ñaanal leen yéen ñi nga xam ni seen capacité yi ngeen am ak coono gi ngeen daj lépp pour mbir mi donc ñu lépp nag ñu delloo ko yàlla sante ko ko di wax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin mbégte la ngëneel la voilà léegi nag après le combat continue donc euh, bu weesoo loolu comme ni ma leen ko waxee. waaw waaw waaw waaw cant gi moom mbaxalu Saalum waaw cere sëb moom ak mbaxalu Saalum moom boobu dina ma neex mooy sama palaa nag dèjà man incha allah xam naa ne bu ma demee ba njaax ba combat bi nag ma jox ko yeneen Mollah Morgun yu bees yi ñëw yàlla def ñu am njaboot am doom ah ma defar ci benn ku góor ku tudd Mollah Morgun xam nga. incha allah ñaan naa yàlla bu ma amee njaboot am ku ma tuddee sax mu Mouhamad mu jël sama tur Mollah Morgun ma ne ko Mollah Morgun junior formé ko euh, defar ko ba mu dëgër xam nga ma bàyyi leen ko boobaa nag damay retraité ma retraité njaax waaw di wax soxna si dee ma defaral cere ne may dundee cereg baase cere mbuum di dundee euh, euh, li nga xam ni moom mooy mbaxalu saalum ak supp kànja waaw suma kër moom ku fa ñëw ñett yi ngay lekk ndekki cereg baase wala cereg siim añ supp kànja reer li nga xam ne mooy mbaxalu saalum képp ku ñëw sama kër daal incha allah jàppal ni bu dee suba nga ñëw dinañ la servir cereg baase incha allah bu dee heure añ nga ñëw dinañ la servir euh, li nga xam ni mooy suppu kànja bu dee heure reer nga ñëw it incha allah nañ la servir euh, mbaxalu saalum incha allah donc euh, loolu moom loolu lañ décidé ma relax njaax bàyyeeku ne sama biir bi faraj xam nga booba xel mi daal matal leneen rek boobu sama Mollah Junior di di toj dëkk bi di taal dëkk maanaam booy Mawla Mawla junior fexeel ba buñ lakk sama kër gi de Mawla booy man sa sa baay lakkoon nañ fi sama kër baay de waaye sa kër maam mus nañ ko lakk ndax man nu ma mooy ngir yàlla rek fexeel ba buñ lakk sama kër gi nag booy Mawla junior fexe ko rek waaw góorgóorlu ba buñ lakk sama kër gi lu ne laa daj pour sama kër gi tabaxu ngir yàlla rek Mawla <laughs> junior waxuma nga wàññi nag mais fexeel daal góorgóorlu daal ba buñ lakk sama kër gi nag loolu daal laay bañ <laughs> bon voilà encore une fois